warhamna bi qudratika alayna wala tuhlikna wa anta raja mbokki jullit yi mbokki adduna bi daarul birr wal irshaad mu ngi dikk ak yéen ci benn taxaw seetlu ci situation dëkk bi fii mu tollu tey fan yep yépp mbokki jullit yi soppe yi ak ñi yaakaar ni suñu baat peut-être mën na am lu mu def donte tuuti effet la ñu ngi ñuy woo di ñu wax naan dañoo bëgg ñu wax ci situation dëkk bi fii mu toll xam ngeen ni dëkk bi mi ngi jub ay problème ak i jafe-jafe tey nag daaru birr gis ni kon dinañ def suñu participation ci wax li nu yaakaar ak li nu xalaat am na nag ay chaîne yoo xamante ni fan yii yëpp ñu ngi ma toppoon ngir bëggoon a def ak ñun jotaay mais ñu doon leen wax ni xaar leen xaar leen ndax fitna buy yëkkati ko wala nga yaakaar ni day yëkkatiku waroo teel a wax surtout rawatina dëkk bi nga xam ni saa boo waxee rek mu am fu ñu la féeteel mu am fu ñu la dëkkal loolu moo tax wax fi day jafe ndax dafa am ñoo xamante ni bu wax ji favorable seen boor ñu taat ci ne wiiw jàpp ne ñoom nga àndal bu favorable ci seen boor it ñu mer jàpp ne da ngeen leen a contre ala xaal ñun ku ñuy déglu te xam di nga xam ni wax dëgg yàlla dañoo fee nekk ngir ñëpp ndax ahlu sunna wal jamaa du opposé surtout rawatina su yenn situation yi amee waaye li ma bëgg wax rek mooy jamono bi ñu toll képp ku am ñaan boo mën a ñaan nanga ñaan ngir yàlla indi jàmm ci dëkk bi ndax dañoo nekk ci benn cercle boo xam ni dëkk yi ñu waroon ñépp dañoo am problème ñu doon wax ni Sénégal pays bu stable la bailleurs yi di ñëw touristes yi di ñëw ñépp di ñëw ba ñu jox Sénégal pays de la teranga mu nekkoon chance boo xamante ni amoon nañ ko waaye ñu ngi jëm ci yoon boo xamante ni dañoo nar a ñàkk chance boobu ndax dëkk yi ñu wër gis nañ fitna ya fa nekk te ku xam fitna war ngaa daw boo dundee Côte d'Ivoire wala nga xam fa dara di nga xam ni fitna baaxul baaxul ci ñi jiite waaye baaxul it ci ñi ñu jiite waaye baaxul ci njaboot gi nga xam ni seen yoon nekku ca jamono biñ toll nag su fekkee dañoo bëgg a wax ndax noppi jamono bi responsabilité la waxit responsabilité la waaye wax mooy li nga xam ni moo lay muccal ndax yowmal qiyaam borom bi dana xam ni wax nga te yàlla tax ñu bëgg nag def benn tuur boo xamante ni situation bi pays bi nekk la muy nguur goo xam ni mu ngi waaj a jaamaarloo ak population bi su ma nee population bi mooy lenn ci population bi wala boog lu ëpp te loolu nekkul lu arrangé nguur baaxul ci moom li tax baaxul ci moom mooy bu jàppee ni dafa am doole ba lu mu bëgg a def def ko nguur googu mi ngi jëm ci njuumte te njuumteel buur ak njuumteel nguur balaa ñu koy xam réccu day fekk jëf way amul benn buur ci àdduna bi ba yàlla bindee asamaan ak suuf ba léegi bu defiyee ab population am réussir ko yàgg naa koy wax loolu yàlla mayu ko benn buur maanaam nga défier sa population ne da leen jaay doole danga leen duma mboolem ñi ko def rëccu nañ dinaa la ci jox benn mbir ci firawn firawna xam ngeen ni njabarkat yi dañ ko waxoon ci Muusa ne ko moo lay remplacer firawna ne du ko remplacer bi firawna demee ba jàpp ne nag wax ji njabarkat yi wax mi ngi bëgg a déglu dëggu firawna lal benn politique politique bi mu laloon mooy réy réylu borom bi ne inna firawna ala fi l ard wa jacala ahlaha shiyan yastadcifu taifatan minhum yuzabbihu abnaahum wa yastaxyi nisaahum yàlla nee na firawna dafa wala mu mbëru mbërulu ndax am na dooleem am na armée am na renseignements généraux am na justice am na lépp mu jàpp ne am na doole ne day néewal doole banu Israil ak Muusa waaye ni mu leen di néewee doole néewalee doole li ci jiitu moom mooy wa jaala ahlaha chia mu jël mbooloo mi population séddale leen ci ay pàcc ñii farak moom mu bàyyi leen ñuy gundaandaan di def lu leen neex ñi farul ak moom muy jàpp di rey di tëj noonu la nekkee nekkee ko sonal Muusa ak njabootam kenn ñemewul wax ku wax ñu ne danga far jàpp tëj walla ñu rey noonu la firawna nekkee ba Muusa gis ni dooleem bariwul te bu taxawee fitna mën naa am Muusa ni day génn dëkk bi dem waay waay bi Muusa dee génn dem su firawna naroon a am chance nar a génnee par la grande porte mooy day bàyyi Muusa mu dem waaye Muusa bi muy dem ñu wax ko firawna firawna mu ne suma bàyyee mu dem kon day yomb moom kay li may def mooy dinaa dab muusa duma ko rey ko rey ñi mu àndal jóg boobu mu jógoon ne day rey muusa jaay ko doole lan la mujj fu mu mujj mooy dafa lab daa di dee kon maa ngi fàttali mbokk yi xool leen ci àdduna bi mboolem kilifak guur boo xamante ni mbëru mbërul na ci kaw suuf ci fitna la mujj ndax yàlla mooy doxalee noonu soo ko jàngee wala fi ma koy jàngat ci sunu situation réew mooy da ngay seetlu ne dafa am li ñu tuddee diviser pour mieux régner maanaam tàqale nit ñi ngir ëpp leen doole état boo xam ni ku ànd ak moom lu la neex nga def ku àndul ak moom yaa ngi ci fitna yaa ngi ci natt nan la ñuy jàngatee loolu première jàngat bi mooy bu ñu xoolee situation réew bi mbooleem les xalif généraux ñu baal ma saa boo waxee dañ naan da nga leen di tudd di leen tudd nangama mais c'est très normal il faut ñu tudd leen parce que dañoo jiite ay mbooloo ku jaaxle ci ñoom nga jëm même état bi bu jaaxle bu tiitee ci moom lay dellu boo xoolee xalifa yi ñi ci ëpp dañ leen a corrompre pour ku ciy wax doo ko dégg kon loolu benn façon la ci façon xeex da ngay dem ba situation bi wala dëkk bi ñu bari dañoo jàpp ni xulafaa yi dañoo féete ak état bu ñu xoolee ci presse bi ñi nga xamante ni ñoom ñooy patron presse bi ñoom it ils dañ leen a corrompre ñoom waxuñu seeni rajo waxul seeni journaliste yi fay liggéeyee ñemewu ñoo wax général généralisé wu ma nag waxuma ñëpp waaye patron de presse mën nga ne quatre-vingt-dix pour cent bi yëpp dañ leen a corrompre beneen bi justice ku nekk xam na ci dëkk bi ñu dëkk kenn mënul nax sa moroom moom kay ragal noppi walla wax waaye xam nañ ni justice bi dañ ko instrumentaliser boo xoolee magistrat yi lu mel noonu dafa am te wallahi dëkk boo gis mu tàkk magistrat yi ñoom ñoo ko taal waaye ñoom ñuy mujj am ay fitna barki dem rek gine ñi nga xamante ne magistrat lañu woon ci suure reñ boo xamante ne moom mooy Alpha Condé mujj nañ leen a jàpp indi leen ay problème dëkk bi toll foo xam ne tey imaam yi xutaba yi kenn ñemewul wax lan lañ ñu fi tegal dañ ñu fee tegal apologie terroriste ñu indi ñu ay loi yoo xamante ni apologie terroriste la soo amee sikkim wala nga wax wax boo xam ni favorable pour état ñu indil la problème dugal la dugal la ci loosu apologie terroriste tëj la fa fàtte fa ndax yow danga bokk ci famille kumba amul ndey su fekkee da nga bokk ci famille yi nga xamante ni yu am doole la boo waxee kenn du la def dara ndax xam nañ ni am na foo bokk ci biir journal si la même chose moo am am ca ñoo xamante ne ay corrompu lañ ñu nekk ci lu leen neex di wax ci télé yi di wax ci rajo yi waaye am ñi nga xamante ne dañuy wax dëgg ñu leen di traqué wallahi man mii di wax nii chaque àjjuma su ma waree xutba samay sœur dañuy tiit samay frère dañuy tiit ay nit dañ lay woo naan la moytul gaa yi baaxuñu gaa yi nàngawuñu waa bu fekkee ci loolu lañu du nar dund ndax nekkul dund fitna muy dund boo xamante ni arrangé wul kenn kenn kenn ci société bi Sénégal nag ñi ko yàlla teg seen loxo dénk leen ko yàlla moo leen koy dénk te bis bi koy dindi moom moo koy dindil boppam amul nag pexe bu buur bi mën a am ba samp boppam te yàlla samp ko amul pexe bu opposant mën a am ba samp boppam te yàlla samp ko kon ut jàmm dafa baax jàmm nag bu ñu koy ut nañu xool ñaari mbir bu ñu xoolee ñaari mbir mooy bu ñu nee ut leen jàmm dañu koy jiital ci état bi ndax mooy lu responsable moom la yàllay laaj président moom la yàllay laaj yowmal qiyaam ci sénégalais yi ministre de l'intérieur moom la yàllay laaj ci sénégalais yi population bi moom lay laaj képp ku fi dee te sabab bi ñoom ñoo tax danañ rendre compte yàlla waaye imin opposition bi tamit la même chose koo xamante ni nekk nga sabab ci ay bakkan wadd loolu moo nekk sa kanam te mi ngi lay xaar bokk na ci naqar bu bëri bi société bi am danga koy séddale ci ñaari mbir mooy justice boo xamante ne deux poids deux mesures la ku ànd ak ñoom lu la neex def loolu day indi révolution day tax société bi révolté wu lan moo tax mooy képp ku ànd ak buur ñu ngi def ay musiba lu leen neex ñu def ko mais kenn du leen topp kenn du leen laaj kon léegi ana liggéeyu magistrat bi waatoon ne moom ay mbiram da koy teg ci yoon kon war na waatam trair na boppam trahir na situation waaye trahir na société kon beneen bi beneen boor bi lu waay def booy pare ñu jël si la wallahi man mii di wax nii maa ngi tiit sax ndax bu fekkoon tey wax naa def benn njuumte ëllëg ñu indil la indil la ay problème ne nangam ne nangam ngir denc la suñu ragalee ni boo waxee mu def effet e, wax boobu du leen arrangé ñu def lu mel noonu kon mbokk yi dëkk bi dañ koo war a tabax ci jàmm dañ ko war a tabax ci salaam dañ koo war a tabax ci yiw état bi ne ressaisiru delloo si xelam delloo si boppam xam ni su suñuy policier suñuy gendarme ñu armée pour population bi la waaye du pour benn nit du pour benn état institution yi police gendarmerie armée war nañ koo aar war nañ ko aar loolu mooy dëgg waaye dañoo war a aar population bi bu ñuy aar institution yi aar population bi dafa am nu ñu koy aaree su fekkee ni dañoo gis ni aar population bi ak institution yi mën naa nekk ñu boole leen ndax loolu moom mooy yoon waaye bu ñu sàgganee moyens population bi daje ak service d'ordre daje ak policier yi rayante bi am policier ku dóor bal mu daanu sa rakk la sa mag la sa doomu rakk la sa doomu mag la wala sa doomu dëkkandoo gendarme bi koo tee duma ko loolu la ci yow waaye tamit ne président xam ni ku dee na yëg ni doomam moom moo dee ndax moom mooy le père de la nation moom mooy pàppay nation bi moom moo war a am yërmande dil siwaat xalaataat toog waxtaan te xam ni arrière du gàcce buur day toll temps boo xam ne dangay ngay arrière nekkul gàcce bu ñu am fugg bu ñu rëy waaye arrière ba jàmm am lu ko gën amul arrière ba jàmm am lu ko gën a rëy amul te loolu ko ko def yàlla dana la dimbale dana la aar dana la teg fam la war a teg léegi nag ñu moytu li daloon ñetti nag yi te loolu ku nekk ci ñun mi ngi lay xaar àll bi dafa amoon ñetti nag yu fi nekk nag bu ñuul nag bu weex ak nag bu chocolat ñoom ñett ñu nekk bi gaynde ñëwee ne dafa bëgg dëkk ak ñoom nag bu ñuul bañ ñu ne ko non non amul benn problème mën nañoo nekk gaynde nax leen ba dëkk ak ñoom bi gaynde toogee ba xiif nag bu weex bi la njëkk a proposé dafa toog ba guddi mu xool boppam xool ñetti nag yi ñaari nag yi sombre comme moom mu woo yeneen ñaari woo kenn ne ko gis nga suñu mbokk mu weex mii buñ ko fi bàyyee ku ñuy wër guddi dinañu jàpp ndax fu mu toll boo xoolee moom nga njëkk gis weexaayam gaa yi ne ko wax nga dëgg de mu ne kon bàyyi leen ma rey ko ñun ñett ñu wéet kenn dootuñu gis ah yeneen gaa yi ne waaw kon loolu de comme ñun ñëpp dañuy làqatu te moom day tax ñu feeñ kon moom nañu ko jàpp rey ko ak ñu seetaan bi ko gaynde téye xëcc ko bëgg koo rey nag bi da leen a wax ne leen yéen a ngi may seetaan ñu may rey yéen a ngi may seetaan ñu may néewal doole bis bu paree ci man ci yéen la jëm ñu ne ko waaye jógal fële gaynde tër lekk jëriñoo ñu demati ba gaynde xiifaat waxaat la même chose mu ne gaynde bu sokolaa bi bëccëg bi ku tur moom lay gis wax ko kenn ki nax ko kooku na ko ak garaawul mu tër kooku rey ko waaw ñett bu ñu reyee ñaar kenn ci des bi mu reyee ñaar ñëpp léegi neexalatul kenn gi ndax moo ko ëpp doole bi mu ko ne ginnaaw suba ci yaw ci yow laa jëm lan la wax dafa yuuxu ñu ne ko looy jooy mu ne lekk nañ ma bés ba ñu lekkee sama moroom kon situation dëkk bi nañ ci ñaan nañ ci wax lii jëmul kër te wallaahi gouvernement bi xam leen ni li yàlla namm mooy am opposition bi xam leen ni li yàlla namm mooy am wax nag dafa yombul wax dafa metti waaye yàlla rek moo tax ñuy wax te foofu lañ ci mën a yem ndax dañuy bañ wax ji bëri saaraan amul dara lu ñu tax wax nag lu dul yàlla in uridu illa al islaaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh <laughs> asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk jullit yi noo ngi leen di yëgal benn cérémonie de récital al quran buy am ci daarul bir wal irshad ci njiitalu al oustaz Omar Sall xafizahullah ci ren noo ngi am juróom benn ndongo yu mokkal al quran war a tari cérémonie audition bi mu ngi nekk le 4 février incha allah cérémonie officielle récital quran bi nekk dimanche le 5 février incha allah ci bis boobu ak docteur Sidi Yaxya Ndiaye xafizahullah daf fay def ab conférence ak al oustaz Mor Kébé hafizahullah kon noo ngi leen di woo yéen ñëpp ci xew-xew boobu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.